contre Ousmane Sonko commencé ci affaire Adji Sarr. fan la commencé le complot mi ngi commencé à l' assemblée nationale. et avant l' assemblée nationale ñii nga xamante ne ñoom ñooy le gang bi ma lay wax nii. Mhm. xam nañ ne Ousmane Sonko il est aux impôts et domaines te luñ fa dugal du jàll. Mhm. luñ fa bëgg a du jàll. ñu ne kii il faut l' écarter des impôts. ñu fexeel ko quoi ñu fexeel ko. Moustapha Diakhaté jël dossier bi tey moom moo tax moom moo nekk di wax moom Moustapha Diakhaté moo nekk di wax quoi nga wax xam xam ne vraiment Sénégal neex na quoi. Mhm. Sénégal dafa neex quoi. ok Moustapha Diakhaté mooy wax quoi. ah mais Moustapha Diakhaté citoyen la comme tout le monde il a le droit de parler. Moustapha Diakhaté jël dossier bi. Mhm. pour ñu raje Ousmane Sonko. loolu yëpp luñ ci jublu mooy ñu mën a def seen li ñuy def. xam nga rafetal ko suuf si ñuy sàcc. Mm. ñu mun ko neenal ñu mun ko rafetal su euh, géej gi ñuy joxe licence de pêche ñu mun ci jaar euh, phosphate yi ñuy exploité mine yi ñuy exploité. ñu mun ko jaaralee foofu euh, en tout cas ci anam boo xamante ne vraiment amul benn problème. Mm-hmm. loolu moo tax ñu jëlee ko d'abord impôt. kon faxel bi foofu la commencé foofu la commencé. ñu ne ah non assemblée kii dafa am lu bari lu mu xam ci réew mi day ñëw boole ñu askan wi. parce que bu ñëwee fii rek day naan lii am na lii am na lii am na lii am na parce que loi bee ko may temps d'antenne mhm. bu ñu ko may fu muy yekkali ndax nañ ko jëlee assemblée ñu jëlee ko assemblée. ok jaarale ko ci ñoo xamante ne ñoo doon les amis d'hier. <laughs> ok. mooy mooy ñi taxaw. Mhm. wax ma ñu tëdd waaye ñi taxaw. ñi taxaw bëgg taxawal taxaw taxawu sénégalais mhm. jaarale ci ñoom. caxa caxate list bi liste ba jàllul Ousmane Sonko n'est pas député. ñu jógee fa ñu ne léegi nag amul immunité parlementaire amul fu muy amul fu muy waxee nañ ko tàqal ñu dem ci benn hôtel comploté def affaire am mbirum Adji Sarr bi joué film bi scénario ñu bind ko ainsi de suite teg malheureusement scénario le scénario a été ah, marqué. mais moom moo avoué devant tout le monde que moom demoon na ci ba. déggoo lu ma la dama la ne. Mhm. dama la ne. waay le bi nga xamante def nañ ko. Mhm. dañu ko raté hôpital. Mhm. bu amuloon ku feebar. Mhm. kuy feebar. Mhm. hôpital kenn du ko tabax. c'est vrai. cimetière bu am bu amuloon dee. Mhm. kenn du fa ne. dëgg kon li nga xamante ne moom mooy salon de beauté. dañ ko taxawal parce que ay nit a fay ñëw du ay mala. waaye scénario bi bu ñu bi ñu defaroon moom lañ raté. et malheureusement Adji Sarr ne savait pas que lii lay mujjee ndeysaan la victime. ok. maa njëkk wax lii le complot ko njëkk a wax Sénégal. boobu kenn waxagul complot mhm. parce que dafa am lu bari loo xamante ne dama ko fekkee mhm. complot fa lañ fa lañ ko fa lañ ko nase ñu ne déet lii du sotti dossier bii moom ñàkk nañ ko ñu jaarale si ñu xam ne lii moom bii ñàkk nañ ko mhm. bii bii du jàll parce que ñoom ñëpp ñi leen ñi leen ñu ñu ñu juge ñu wax ak yëpp magistrat yi ñu wax ak yëpp ñëpp wax nañ leen ne bii du jàll bii moom mënul tere Ousmane Sonko ne candidat bu dee lool la. parce que li ñu buggoon mooy ko mu bañ a nekk candidat parce que bu nekkee candidat ba ñëw au pouvoir. Mhm. li fi def da koy gis. Mhm. parce que moom ñi mu àndal ñi bari impôt yi domaine lañuy liggéey. Mhm. dañuy xam lu bari ci ñun dañuy génnee suñu mbóot yi mooy li xew tey. lii lañ doon bañ. te finalement mujj na am. te mujj na am mooy mbóot yaa ngi génn. am mbóot yi dee. am mboot yi dund. te dina gën a génn am lafañ waaye yëpp dina génn. incha allah lii lañ doon bañ lii lañ doon encadré. Mhm. lii moo tax le président de la république ba woon Macky Sall. Mhm. Mhm. bu demee bay saltel moom euh, moom moom moom gestion. bay dem di demander à un report une présidentielle. c'est catastrophique. mais joxe woon na raison quoi li nga xam si ni moom moo tax parce que dafa bëri woon. fii raison ah mais les candidats y avait y avait y avait c'est pas à lui de dire kii mooy nekk candidat wala mais ñoom ñoo ne dañu gis fichier bi. am problème pas à lui de les juger. il n'est pas acteur dans le jeu. dans le conseil jeu constitutionnel moo conseil constitutionnel moo fi am ba pare moom nekkoo conseil constitutionnel. Mhm. du yow yaay wax kii mooy nekk candidat kii dañ ko def lii kii dañ ko def lii. Mhm. yow xamul lu ñu sant. nekk nga président de la République pendant douze ans. Mhm. nangul nañ la ko. ok et je voudrais très sincèrement rendre un hommage mérité. un hommage poignant. à nos FDS. forces de l'ordre quoi. les forces de défense et de sécurité. j'ai dit la police est à l'intérieur la gendarmerie est à la périphérie. et les militaires à la frontière. ok sunu FDS. Mhm. noonu la ñu téye woon réew mi. Mhm. donte il y avait des mhm. parce que Sénégal mënoon na basculer ci leneen. mais c'est grâce à ci seen rôle ci seen attitude républicaine. loolu moo tax Sénégal fi ñu toog nii. mu mel nu mu mel. bu doon beneen réew la. wala bu fekkente ne am na leneen loo xamante ne xalaat nañ ko. le Sénégal allait plonger. dans la même situation que les autres pays qui sont en guerre ou qui sont dirigés par des militaires. parce que tolloon na jamono yu mu tàngoor lool. jamono joo xamante ne. Mhm. même dans la dans ci biir FDS. Mhm. on se regardait en chien de faïence. que ñu wax ko ñu bañ ko wax c'était la réalité. Okay. mais ils sont ils sont restés républicains. Mhm. donc tale am na ci ñoo xamante ne. véritablement. dañ doon def naka su dul noonu parce que devant eux ils ne voyaient pas un Sénégalais et peut-être wala ki ñu commissionné n'était pas un Sénégalais. Mhm. ba tax ñuy jàpp un Sénégalais. di ko tirer. Mhm. balle à bout portant. Mhm. mu tëdd nga ne est-ce que c'est un Sénégalais qui a tué un Sénégalais. c'est une question. moo tax mbirum garci gar garci bi ñu ñu ko doon parce que jàpp naa ne. un Sénégalais bu wér. sain d'esprit. tuxul naanul. mën na taxaw. Mm-hmm. tiire ci kaw sénégalais xamoo ndax sa jarbaat la xamoo loo leen bokk parce que Sénégal. Mm-hmm. da Sénégal. man ak yow ni ñuy waxtaanee nii. Mm-hmm. bu ñu waxtaanee fii ngoon. danañ xam ne am na lu ñu bokk. ça c'est le Sénégal c'est man ak yow. nga dem Guinée. da nga boo waxtaanee. boo mootul da nga le Guinéen sa sa mbokk lay doon. si si le Malien noonu. c'est la sous-région comme ça. c'est euh, le partage de de l'Afrique. moo ni demee. ok et malheureusement aujourd'hui mhm. qui nous coûte très cher. Mhm. parce que on considère le Guinéen comme Guinéen. mais on mhm. considère le Sénégalais comme Sénégalais. alors que nous sommes le même peuple. alors ñu terminer ak une toute dernière question boo xam ne si nii euh, actuellement ci nomination yi nga xam si ni gis nañ ko depuis bi nga xam ne ni euh, jël nañu pouvoir bi ak léegi mais dañu waxoon nan nga jàngatee tout d'abord euh, nomination est-ce que nekkul. partage di gâteau bi nga xam si ni dañu waxoon nii du mën a nekk mais gis nañu ñëpp ñi nga xam ne si ni ñoo doon jàppal tànk waa Pastef wala Bassirou Diomaye daanaka ñoom ñëpp jox nañ leen ay poste nan nga jàngatee tout d'abord ah, man de bu dee na sama ah, lu tax ñu bëgg ñu gëm loo ni partage di gâteau du am non non wala loolu laa wax de man laa mhm. man laa man foofu ñëwaguma sa question ñëwaguma mhm. dama ne man sama gâteau mhm. balaa ma ciy partager kenn ñama bokkal ñu lekk ci ba pare ok xam nga yaa ngi ñëw fii di ma interview waaye gâteau bu ñëw na foofu damay jox sama rédaction ba pare. ba pare doo am doo jox c' <laughs> est normal. c' normal oui. maintenant bu ñu ñëwee nag si li nga xamante ne moom la moom lañ falee gouvernement bi. Mhm. ak li nga xamante ne moom mooy les directeurs généraux. Mhm. ñi wax partage du gâteau c' est de mauvais perdants et souvent boo xoolee ñoom ñooy wax. mooy les mauvais perdants c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont aucune leçon à mais tamit bu fekkee ne moom premier ministre Ousmane Sonko dafa waxoon que ku yaakaar ni da fi ñëw pour partager gâteau yaa nga nga gis Ousmane Sonko dans le gouvernement dans le gouvernement de Macky Sall. non non du a def. léegi da bëgg Ousmane Sonko fal ci gouvernement de Macky pourtant def na ko le secrétaire général la présidence fu mu nekkoon ci Macky Sall. ci Macky Sall fu mu ci Macky Sall. ministre des finances. Mhm. fu mu nekkoon finance en tant que chargé de budget. Mhm. ak mu nekk du ko du mu def da koo jël. Mhm. kon y' pas de partage du gâteau il s'agit de partage de compétences. de compétences appel à la candidature bi nag. appel à la candidature lépp loo gis il faut structurer. dañ ne dans la loi sénégalaise. actuellement nii. damay revenir ci li ma la li ma la waxoon assemblée. dans la loi sénégalaise actuellement li fi ne mooy. c' est le président de la république. qui de au poste de responsabilité. Mhm. militaire et civile. Mhm. ça c'est la loi qui le dit. Mhm. léegi yow. en tan que président de la république da nga ñemee jéggi loi. mais kon lu taxoon ñu ko bëgg a gëmloo. Euh, est-ce que dafa est dafa wees est-ce que Diomaye Faye dafa pare. mais lan moo des nomination yi non non dama ne Diomaye dafa pare gouvernance non non. ñaata at ko dese. Euh, dese cinq ans kay. léegi mënuñu am 40 jours. Uh-huh. en quarante jour rek ñu ne non moom moo waxoon dafay def lii xam nga nit ñi dañoo bëgg a wax loolu dañoo bëgg a Diomaye dugg dans le euh, tomber dans le piège il va jamais tomber dans la piège là parce que bu boobaa il sera le premier Sénégalais celui qui devrait protéger la constitution à bafouer la constitution parce que c'est la loi qui le dit le président de la République nomme au poste civil et militaire mais dama ne maa ngi maa ngi mm-hmm. moo tax ma ne la lépp loo gis dafa am li nga xamante ne moom mooy li koy encadré. Mhm. loi moo koy encadré. Mhm. da ngay xaar ba nga am majorité à la assemblée ngeen ne parce que li ñu nekk nii. Mhm. ci continuité pouvoir bi ñu nekkoon lañ nekk. il faut que ñu pouvoir bi mu nekk parce que. l' état est une continuité. da ngay continuer li fi nekkoon. bu demee nag ba nga ba ba moom li nga xamante ne moom mooy euh, moom moo yore lépp li nga xamante ne mooy daganal. baatu askan wi. boobaa nag nga def li ngay def. Mhm. da ngay xaar ba nga am majorité assemblée. Mhm. mais imagine tey nga jël loi nga ne dama koy yóbbu assemblée. Mhm. pour ñu changer ma côté boobu ñu naan fi ñu naan le président de la république nomme au poste civil et militaire. dama bëgg ngeen changer ma ko yéen waa assemblée. Amadou Mame Diop mi nekk président assemblée nationale mi nga xam temps mu ngi active pour APR gën a ñëwaat. Mhm. mais moo ko njëkk a rejeté da lay naan man sa loi bi mhm. mhm. da ngay da ngay def ay da ngay def appel à candidature mais si loi bi du fi jàll alors que loi boobu moo ko moo ko mënoon a moom mën a jàllale. léegi nag. il faut ñu ñu xaar. ba gars yi am majorité à l' assemblée. bu ñu amee majorité à l' assemblée maintenant ñu ñëw nag loi boobu ñu jël ko ñu ne waa assemblée ba député yi. lii de man dama bëgg désormais li nga xamante ne moom mooy yenn ci ay yi parce que waxuloon sax postes yi mais yenn poste bii ak bii direction bi ak bii mu nekk appel à candidature bëgg naa ngeen votel ma loi mais loolu su ñëwee bu boobaa dañuy dañuy dañuy ñi nga xam si nommé nañ leen ba pare dañ leen di dindi après bien loolu tamit du nekk loo xam ne si peut-être dina indi benn jaxasoo si xelu sénégalais parce que fal nga fal ay nit même pas cinq mois wala six nga foole leen ñëw daal ni damay indiwaat fii waxuma ministre de waxuma la directeur de mais ministre da nga ko changé en moins de deux mois de deux mois. Hmm. ah Macky Sall bi muy dem. du defal gouvernement bees. oui Sidiki Kaba comme ministre. premier ministre. Hmm. Sidiki Kaba dafa sax deux mois. mais boobu dafa fekke ni waaw waaw c'est vrai. ay ah, <laughs> eh, si c'est deux mois nga changé ko. Hmm. du dëgg. nga changé gouvernement bi yëpp te ñoom ñëpp daanaka kenn deful. mun na mun am nañu bëri ñoo xam ne defuñ sax un mois et demi. Mhm. seen poste yi. Mhm. am na ñoo xam ne sax demuñ sax seen poste seen seen bureau ya mhm. nga changé waaw ku changé loolu mënoo changé leneen ay directeur directeur nga xam ne c'est des commissions mais le ministère la direction bi nga xam ne moom nga ciblé. fii ñaata direct ci directeur ñoo fi changé en quelque en kii nga fal directeur nga dindi ko. ok mais le cadre ko. mais le cadre parce que parce que c' est un changement. Mhm. du nekkul dañ koy dañ koy anéantir dañ koy dind ba mu set. mais c' est un changement de personne à la tête de cette direction là. mais daal mën nañ jàpp ne ñi doon xeex actuellement ñoom la ñuy jox poste yi loolu moo gën a yelloo. man jàpp naa ne. Mhm. ce n'est même pas le cas. Mhm. mais jàpp naa looloo looloo gën. man de kii ma bokkal yonent bi. bi mu demee xare Badar. les 33 33 yi mu àndaloon. ñooñu ñooy saaba yi. dafa am ku ku nekk ku bokk ci saaba yi te xeexoo. non non. il faut que <laughs> ok alors merci beaucoup mais tamit le cas de Aïda Mbodj ak Dame Mbodj aussi parce que le cas ay Aïda Mbodj dañoo ñëw ci euh, fi nga xam si ni moo di DER euh, FG bi nga xam si ni euh, lu jëm ci wàllu financement yëfu ndaw ñi moo ko tax a jóg est-ce que gisoo woon. yëfu ah, bien sûr financement. mais parce que xam nga ndaw yaa bëgg financement. ah déedéet mais ñoom ñoo gën a nekk parce que. DER lan la DER lan la.